la forfeture de 2024 magistrat yi laa bëgg a waxal delloo seen xel du ngeen yàlla du ngeen yonent ay nit kese ngeen mënuñu saayu yu Sénégal nekkee ci guuta benn magistrat lay doon bu dee procureur benn magistrat lay doon bu dee doyen des juges wala groupe magistrat lay doon bu dee conseil constitutionnel wala cour suprême boo leen dajalewoon ñoom ñëpp matuñu fukk saa su réew mi waree tàkk ñoo ñoo koy taal est-ce que loolu mën nañ ko continuer nangu au nom de quoi des avantages yi leen Macky Sall di jox ñu wax leen ko nag c'est pas une menace c'est une promesse tôt ou tard de ces forfaitures ñuy wax sénégalais nag nii gis nga ñun nitu jàmm lañu nitu jàmm mooy doxale ni ñu doxale ñu tooñ la ba ñëpp àdduna yëpp gis ni tooñ nañ la mu ne fang nga ne sànniwuma xeer dóoruma ay fetal yoruñu ko sax doxuma jëm pare waaye dinaa dajale sénégalais yëpp ñu waxtaan na te waxtaan boobu dina leen ci gaa gaaral tam lan mooy doon agenda bi ci at yi di ci weer yi di ñëw kooku ku bëgg a jàmm moo ko bëgg moo koy def suñu ñoo gis manifestation bu ñu autorisé problème am fi amul saa yu problème amee manifestation bu ñu autorisé wul la te moyens yi ngay déployer pour ne da ngay da ngay tere manifestation am moyens yi nga soxla pour encadrer manifestation tollul noonu toll ko kon manipulation yi ñuy def dem monter seeni vidéo ñëw naan waaw kii li mu wax yow mi di policier boo gisee vidéo demal jëli kooku sénégalais la mi ngi fii demal jëli ko nga toog fi nga toog naan woo ay ñoom Khalifa Sall naan leen lan ngeen xalaat ci lii manipulation yi ñuy def foog ni mun nañu jouer ci conscience su ndaw ñi naan leen yéenay seen cher ak canon su ngeen fa dee it yéen perte ñoom seen i doom ñun suñuy doom fii la ñu ne ci dëkk bi di jàng ci école publique yi amuñu garde du corps amuñu dara gis nga fixation boobu ñu def suñu njaboot sax déjà c'est suspect ñoom suñu mënul jot Ousmane Sonko lu ñuy def ba jot doomam mooy seen yitte fi mu toll nii moo tax lu jol suñu njaboot Macky Sall la te bu amee it njabootam dootul am jàmm fii ak ilaa yow mi diin loolu moom dañ koy wax mu leer daa jël rek suñuy njaboot def ci fixation waaw doomam nii doomam nële ñun suñuy njaboot ngi fii ci réew mi bu ñu doon dem ci manifestation bu ñuy dem ci manifestation ñoom du ñu xam ne suñu njaboot a ngi ci biir manifestation parce que la ñu bëgg ñun xam nañ ko seeni plan xam nañ ko dama ne sénégalais yi gis nga kuy ut kuy def sacrifice ba ba bëgg ko rek la ñuy laaj sénégalais yi bëriwul de ñii toog fii ñooy def sacrifice chaque jour nag di risquer seen bakkan di risquer la prison lu ne ñu dégg ko subaak ngoon ba bëccëg. di ko teg seen ndodd seen i njaboot di dégg loolu sak sacrifice daf koo mën a ëpp lan moo tax ñu koy def alal moo tax ñu koy def ñun soxlaluñu dara nguur man de nekk naa député ba jóge fa weer wu dee 400000 francs laa doon fayeeku li ci des yëpp dama koo joxe nekk naa maire un franc du ma ko jël du du salaire du carburant du dara ñun soxlawuñu dara ci politique bi jaamu yàlla lañ ci ut ñun servir notre peuple ñun duñu ñoom de ñoom ñi da dajji kees yi yor ay milliards jël seen i doom seeni i doom ñi ngi diggante Dubaï Canada ak feneen ak feneen ñun suñu doom a ngi fii bokkuñoo ak ñoom ñoom ñi sàcc xaalisu réew mi rawale seen i doom kon su dee ñun ñi ngi def sacrifice yu toll noonu démb sama waay bu ji waajur bu jigéen dafa ma woo ne ma dellu seegoo Ziguinchor ma ne ko tànk manifestation bu weesul du ma ñëw mu ne ma tey ngaa dellu si ndax li may dégg dalul sama xel mane ko yaay gis nga mercredi bu soobee yàlla ñett yi moo mën a am daañ ñu bàyyi ñu dem def suñu manifestation ci jàmm ñibbisi si jàmm réew mi continuer doxam wala nañu xëy jàpp ñu ñun ñëpp te bu boobaa ñoo ko war a gérer wala ñu def pexe bu ëpp loolu it waaye bu ci munti am rek man ci ñiy jiitu laa ciy bokk parce que du ma leader boo xam ne day woote ba pare dem làqatu ji mu tegal ma ci ni léeg-léeg de xoolu yaay mooy wax waaye li nga wax yëpp dëgg la yàlla na leen yàlla aar kon ñun dañoo am njaboot am ay wayjur la ñuy dégg suba ba ngoon rek ñu koy teg suñu ndodd doy na ci souffrir waxuma laa ñu naan ay voilà dañoo bëgg a utiliser ni yi ñun suñuy xeex jeunes yi ñoo tax yéen jeunes yi yéen a tax ñuy xeex. parce que Sénégal mën na baax ba jaaxal ñëpp waaye du mus a baax ak Macky Sall ndax jaay na réew mi loolu nañ ci dellu si ëllëg jaay na réew mi jaay na ko tubaab yi jaay na ko naar yi jaay na ko turc jaay na ko chinois yi ñun moomatuñu dara ci réew mi ce travail de réappropriation de notre souveraineté mooy projet Yewwi Askan Wi du leneen kon bu leen kenn essayer jouer seen conscience génn leen massivement ñu daje place de l'Obélisque yow cadre de banque bi yow haut fonctionnaire bi yow taximan bi yow commerçant bi amul ku ñu bàyyi génn leen parce que c'est l'avenir du Sénégal qui en jeu bu ngeen ñëwee ba foofu nag lañu ñu bëgg a waxtaan ak yéen dinañ leen ko wax parce que dañu ne loolu ci cadre bu spécial occasion bu spéciale dañ koy waxtaan ak yéen lii mooy woote 8 juin bi ñuy arabtu nag Macky xam nga yi ñuy def nii yëpp xale la di def ay capture d'image naan adresse Sonko ngi nii adresse Déthié ngi nii man sama kër ñëpp a ko xam comme nee nañu ñoom léegi xam nga ku jóg doo mës a dégg ñu ne Benno Bokk Yaakaar day def manifestation nga dégg opposition bi ne damay def contre manifestation musoo ko dégg suñu yoon newu ci ñoom il ne nous intéresse pas d'ailleurs jaru ko ndax ñoom ñooy reyante seen biir fu ñu dajee bi ñu paree seddoo xaalis bi ñu sàcc ci réew mi paaka yi génn jaas yi génn kooku jarul ngay dem ci ko musudoo dégg ñu ne euh, Benno Bokk Yaakaar day def manifestation opposition bi ne def contre manifestation musoo dégg ñu ne ñoom dañuy def manifestation opposition bi recruter ay nervi pour dem ne dañuy xeex ak ñoom musul am du ma bugguma wax mbër parce que bugguma tooñ une profession waaw bugguma wax mbër parce que bugguma tooñ une profession ndax mbër yi la ca ëpp li ma gëm mooy ñu yewu lañ ñu conscient lañ te xam nañ seen bopp waaye nervi yi ñuy recruter di di leen essayer armé naan leen dem leen dal ci mosoo dégg opposition recruter ay nervi amul nit boo amee sa kattan am sa formation nit jël la ne la yaa may aar mun nga dem defi loolu garde du corps waaye jël la ne la demal dal ci diw ci kaw diw demal attaquer manifestation diw ñu ñàkk bopp weesuwul loolu te ku ko def nag yaa na nga xam ni sa bakkan a ngi ci xottu gerte parce que personne ne peut résister à peuple bu dee force de l'ordre ak li ñu yor ci gànnaay ak lépp bu peuple jógee ba jóg ñoom ñoo ko mënalul kuñ fi ndax ba ne la yow demal attaqué xamal ni yow yaa ngi tayle sa bopp ndax fa nga dëkk fa nga nekk nit ñi dañ fa régler seen problème ak yow kon ñi ngi waat ñëpp réew mi dafa toll à un moment extrêmement grave Macky Sall gannaaw bi mu lajjee lajjaat di gën a firndeel lajjam mooy réew bu nekk en guerre nga xam ne tey bombardé nañu immeuble yëpp ba réew ma dara taxawutu fa ci réew googu lay dem di saraxu ne leen jox leen ma blé jox leen ma mais moom 10 ans yi lan la def ba ñu am ba ba lan la liggéey pour ñu am blé am maïs fii ci réew mi tey ku fi yoroon poulailler mënatoo am aliment parce que blé bi Ukraine la doon jóge wala kii bi maïs bi. moom lan la def ci 10 ans tey mu jël euh, avion am dem di lambar lambari dem gis Poutine naan ko dimbali ma nga bàyyi poor bi ndax ñu am ñebbe ñàkk jom weesuwul loolu c'est ça qui en jeu actuellement na sénégalais yeewu ñun fitna taxu ñoo jóg waaye kenn mënul tere ñu mener les combats qu'on doit pour ce pays guerre psychologique bi ñuy joué nag mënul jàll kon te li ci topp foofu lay daaneel bii pas dañu ne rassemblement bi ndakaaru la waaye la résistance doit sur tout le territoire national loolu moom na ci nañ ci dugal seen bopp maatam ba Ziguinchor ndakaaru ba tàmba diaspora bi lépp résistance bi foofu lay foofu lay demee duñ leen may jàmm duñu leen may fu ñu nooyee parce que may ñu jàmm may ñu fu ñu nooyee loolu laa bëggoon daaneel ñu ngi leen gërëm ñu ngi leen di Ah, je non, pour la démarche du conseil constitutionnel on y reviendra largement demain mais je veux conseil constitutionnel c'est sept c'est sept messieurs et dames pompeusement appelés sages j'ai tant toujours dit que et ça je le dis depuis cinq ans revoyez mes vidéos Il y a des choses qu'on ne peut plus admettre dans ce pays. Au nom de l'exercice d'une profession, on se permet de piétiner la loi, de piétiner la constitution et de mettre le pays en insécurité. Ce qui se passe actuellement, c'est la responsabilité de sept personnes, huit qui sont tous des magistrats. Parce que le ministre de l'Intérieur est magistrat. C'est la responsabilité de huit personnes. Et à chaque fois que le pays est dans ces situations de tension, c'est la c'est le conseil constitutionnel c'est la cour suprême c'est la DG e. est-ce que cela c'est normal moins de dix personnes qui tiennent tout un pays en otage pour les avantages qu'on leur donne aujourd'hui ils sont barricadés chez eux gardés par le GIGN gardés par la BIP gardés gardés c'est pas la peine personne ne va les attaquer personne mais qu'ils comprennent que tôt ou tard ils rendront compte de leur irresponsabilité devant cette même loi qu'ils étaient censés dire et qu'ils n'ont pas dite, devant cette même constitution qu'ils ont piétinée et violée, ils rendront compte. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est une violation flagrante de la loi. Parce que Macky Sall prolonge l'âge de la retraite, parce que Macky Sall donne des dessous de table, parce que Macky Sall donne des... Il, faut aller voir le train de vie de ces gens-là. Allez voir le train de vie de ces gens. Ce n'est ils sont prêts à tout faire et à mettre ce pays en péril et en danger. Ça ne peut pas continuer. Et c'est valable de manière générale. La justice de ce pays, c'est la première grande réforme qu'il faudra faire. Il n'y a plus de justice dans ce pays. Cette justice fait mal au pays. Elle se fait mal à elle-même. Parce que tous les magistrats sérieux, compétents, aujourd'hui souffrent des actes posés par une petite minorité, un groupuscule de magistrats que Macky a choisi et trié sur le volet. À chaque fois qu'on est dans ces situations, c'est un procureur qui est à la base. À chaque fois qu'on est dans une situation, c'est un doyen des juges qui est à la base. À chaque fois qu'on est dans une situation, c'est la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel. Est-ce que cela est normal Jusqu'à quand on va supporter ça Et c'est pourquoi j'ai dit tantôt que les gens rendront des actes ça ne peut pas se faire aussi facilement les rumeurs disent que c'est puisque euh, Pape Omar Sakho doit aller à la retraite dans quelques semaines au plus tard après avoir fait ses forfaitures et probablement avoir été bien récompensé par Macky Sall que c'est Serigne Bassirou l'autre catastrophe de la magistrature qui est préposé pour le remplacer et qui va avoir la mission de valider à côté de Antoine Diome le projet de de troisième mandat. Ils nous trouveront en face. C'est simple comme bonjour. Il, il reste à Macky Sall 18 mois à la tête de ce pays. J'allais dire même 16 mois. Après Macky Sall, les gens doivent comprendre qu'ils rendront compte. Et ce ne, ce ne sont pas des menaces, c'est des promesses fermes. Ils rendront compte des actes qu'ils ont posés. Qu'ils soient hauts fonctionnaires, qu'ils soient magistrats, tous les gens qui poseront des actes délibérément politiques qui n'ont rien à voir avec la loi auront à rendre compte des agissements qu'ils ont eus. Parce que ce qui va se passer, s'il y a débordement, c'est la responsabilité de ces sept personnes. Et de ces sept personnes uniquement. S'il y a débordement, demain et les jours à venir, c'est leur responsabilité. Et si leur conscience leur permet, malgré tout, d'aller prendre leur tchéboudienne et de prendre leur thé tranquillement, c'est qu'il ne, ne reste de conscience